salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi kaa bu rëy xale bii ngeen di gis si photo bi faat ma la tudd Bologna la dëkk moom nag dafa bëggoon iPhone 7 ñëw wax ko maam bu benn xale bu góor xale bu góor bi ne da koy may iPhone 7 nee na moom iPhone 7 moo ko gën lu ne ci àddunaam xale bu góor bi sant ko ne ko da ngay jël brosse à dents yi ni borosoo dugal ko sa lëf li woo ma appel vidéo di ko def ba ma daanu mu jël brosse à di ko dugal ci data bi di booram boppam di tooyal message yëpp maa ngi moom ak lépp. léegi nag ba mu daanu mu ne ko da koy jox iPhone 7 ba léegi nii Fatima mii 14 ans la am 14 ans ba léegi Fatima jotul iPhone 7 mam ma jógee foofu envoyé ma vidéo yi vidéo yi dugalu ma ko fen mu jël vidéo yi di ko tas biir Italie di ko tas biir Bergamo Brescia ba nit ñi jot xale bi dafa daw génn këram kenn xamul day xaru kenn xamul lu muy def instant bi nag xale bi la ñuy seet ay mbokkam mënuñu koo gis guddi naa leen leeralal lépp nu mu demee ci Capo Boss Anama 3 ndax Capo Boss Anama dañ ko boole naa leen ko leeral ndax xam naa lépp salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi kaa bu rëy xale bii ngeen di gis si photo bi faat yi Fatima la tudd ñaa la dëkk moom nag dafa bëggoon iPhone 7 ñëw wax ko mambo benn xale bu góor xale bu góor bi ne ko da koy may iPhone 7 nee na moom iPhone 7 moo ko gën a lu ne ci àddunaam xale bu góor bi sant ko ne ko da ngay jël brosse à dents yi ni soo dugal ko sa lëf li woo ma appel vidéo di ko def ba ma daanu mu jël boros à di ko dugal ci data bi di boppam di tooyal message yëpp maa ngi moom ak lépp. léegi nag ba mu daanu mu ne ko da koy jox iPhone 7 ba léegi nii Fatima mii 14 ans la am 14 ans ba léegi Fatima jotul iPhone 7 mam mu jógee foofu envoyé ma vidéo yi vidéo yi dugalu ma ko fenn mu jël vidéo yi di ko tas biir Italie di ko tas benn Bergamo Brescia ba nit ñi jot xale bi dafa daw génn këram kër xamul day xaru kër xamul lu muy def instant bii nag xale bi la ñuy seet ay mbokkam mënuñu koo gis guddi naa leen leeralal lépp nu mu demee. ci Campo Boss Adama 3 ndax Campo Boss Adama dañ koo boole naa leen ko leeral ndax xam naa lépp.